léegi il est en grève de la faim gis na acteurs politiques yu bari ñu koy ñaan euh, mu arrêter grève de la faim bi est-ce que vous avez un message à lui à lui adresser waaw man li ma koy adressé rek mooy en tant que jullit ah parce que euh, boo amee foi moom mooy yàlla dafa accorder importance particulière ci bàkkan et que ma xam ni ci en tout cas ci li muy wone euh, bàyyi na xel bu baax les enseignements religieux et que donc foofu rek lañ koy delloo mu bañ a euh, mel ni kuy xaru waaye mu nangu li nga xamante ne moom la la yàlla dogal parce que il a fait <laughs> sa part du colibri li ci des moom moom mooy population sénégalaise moo ci mën a def lu mu mën a def mais lui je pense que il a il a il a euh, il a fait ce qu'il pouvait faire maintenant par contre euh, je comprends son combat. Hmm. je comprends son combat peut-être que aujourd'hui moom arme boobu rek la am waaw parce que il n'a pas voulu euh, il n'a pas voulu peut-être donner l'impression d'avoir d'avoir abandonné voilà mais li ma ko mën a wax rek moom mooy euh, nit mën na continuer son combat d'une autre manière gis nañ fii euh, nu mu tuddati Nelson Mandela il a passé combien de temps en prison après il est sorti il est devenu président de la république donc nit ki mu occupé euh, euh, li nga xamante ne moom la état yàlla destiné woon donc moom bu fekkente ni ñooñu dañoo defoon grève de la faim ba dee kon du ñu am occasion bi. mais mais mais revoiraat ba ban message ngay adressé à l'état dans cette affaire là. mais moi euh, message bi may adressé à l'état euh, c'est surtout un message envers envers le président de la république. c'est-à-dire c'est le père de la nation donc le père de la nation. moom rek moom moo bàyyi xel ci ñi mu uuf ndaxte qu'on le que Sonko le veuille ou non ou bien que nu tous nous le veuillions ou non si njabootam la bokk ndax moom moo ñu yilif ñun ñëpp kon moom rek la ñuy delloowaat euh, mbir mi di ñaan yàlla mi nga xamante ni moo mun a guider nit na ko guider avant que l'irréparable na se reproduise euh,